alhamdulilah rabbil alamin وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mbokki jullit yi ñoo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaraka wa taala ci def ay ndigalam sori ay tere mbokki jullit yi ñoo ngi nekk ci mujjub am at moo xam ne daanaka ñetti fan ci des wala lu ko matul war a tàmbaliwaat at mu yees kon jaadu na lu del siwaat xoolaat suñ fan lan toll ci lislaam gi fan lan toll ci suñ réew mi moo tax am nañ yéene ci ay xutba yu ñëw ci kanam lépp dafa pare fas yéene jëm ci participation yi nga xam ne moo jaadu ci ñëpp ci liggéeyal réew mi mu jëm kanam

te fekk ku gëm la nee na danañ ko dundal dund bu teey fii waaye ëllëg itam danañ ko fay ak yoolam mu tàbbi àjjana développement nag doon loo xam ne ñi koy wax bari na lool baat bi ñi koy wax tënniye ci kàllaama arab mu doon baat boo xam ne buñ delloo ca alquran ak sunna wala ci téere fiqh ya baat bu tudd noonu di wëndeelu ci téere yooyu doo ko ci gis waaye nag da nga baat yu bare bare bari yoo xam ñoo bokk lu ñuy firi yoo xam ne ma nga foofa li ñu tuddee imaara wala ñu koy tuddee tamkiin wala ñu koy tuddee annama wala ñu koy tuddee tasmiir boo ko seetloo ñoom yépp fi mu jëm mooy defar nit ki ba baax mën a baaxal environnement bi mu nekk dund àdduna mën a doon dund bu teey gu neex bu ànd ak jàmm ëllëg nit ki xàbbi àjjal kooku mooy développement ci ci l'islam islam nag dafa am nu mu ko tëree ba tax boromi xam-xam yi ci maanaa moom dañoo gis ne loolu sax waajib maanaam lu war la ci jullit yi ñu liggéey fii ci suuf ba tabax ko tabax bu baax nit ñi mën a dund dund bu teey nit ñi mën a jaamu yàlla loolu waajib la moo tax borom bi tabaraka wa taala ne na moo leen bind bind ba noppi digal leen ba noppi digal leen ngeen yi dañ ne loolu lañ moo di lu war la lu war la ci nit ñi ñu dundal suuf si ci bay ko tabax ko ak jëmbat ko yoo xam ne am njariñ la li doomu aadama mën a jëfandikoo ci ak jaamu yàlla développement ci lislaam nag ñaari ponk la am ñaari piliers yoo xam ne ca la tegu ba ca jëkk moo di al aqida islamiyya loolu danañ ci dellusiwaat insha allah ci beneen xutba fas fas bu wér ban relation la am ak développement ak pas-pas bu wéree di fan lay jaar ba yàq koom-koomu réew kon kaw bu njëkk ba mooy pas-pasu lislaam bi nga xam ne léppam tabax la te dara luy toj nekku ci nit lay jëkk a tabax ba mu mel ni nit war a mel mu jox ko ndigal yooyu ko war a jox yépp aji ci yuy tabax àdduna ak àllaaxira kon ndigal lu wér la am moom nit ci ne na dox ci kaw suuf si na liggéey na andi lu koy jariñ di jariñ aw askanam di jariñ am réewam te wasandiku lépp luy yàq fàttali ko sa borom boo toll mooy waral doo yàq famshu fi manaakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi lu ngeen lekk waaye bu leen fàtte sa borom bul fàtte ne da ngay dellu wa ilayhi nushur ñaareelu kenn bi muy pilier bi nga xam ne mooy sabab jubluwaayu askan wi askan wi seen jubluwaay bañ yëg ne ñoom ñëpp dañoo ànd bokk fuñ jëm bokk ak yëg-yëg ci ne dañoo war a defar loolu li leen amul nga xam ne am na ñoo xam ne dañoo war a defar li ñëpp bokk am lu bari ci mbooloo mi yëg ne ñoom dañoo war a defaral seen bopp rek wala sax dañoo war a yàq li fekk looloo ngi am développement am ci am réew day jafe kon al irada al jamaaiya muy yëg-yëg ak jubluwaay objectif bi nga xam bi moom la war a yor faw ñu yar ko jàngal ko jubbanti ko ba ñoom ñëpp ñu ànd bokk benn vision buñ jëm muy ab jubluwaay def day jikke yar nit taqwa li muy def mu bàyyi ci xel boroomam ragal ko wattandi meram yar mu njub jaar ci siraatul mustaqim ba noppi sax ca loolu mooy ànd tudd listiqaama ndax dog yoon wi rek taxul ñu ne kii mustaqim la waaye danga koy dog ba noppi sax ci biir loolu la ñaari mbir yooyu boo leen xoolee dañoo takkaloo lool ak tabax suuf ragal yàlla ak indi koom-koom ci kaw suuf ak jub ba noppi sax ci jub ak tabax koom-koomu kaw suuf yooyu ñoo ànd ñoo takkaloo moo tax borom bi tabaraka wa taala mu ne walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fataxna alayhim barakatin min assamai wal ard nit ñi su fekkoon ne seen ngëm ak seen ragal yàlla defe nañ ko niñ leen ko sante borom bi nee na loolu borom bi tabaraka wa taala boo ko warlu kon soo gisee jafe-jafe ci dund gi wala manque manque delluwaatal ci nit ñi xam ne imaan ba ak taqwa ba moo def waaye yàlla moom li wax da koy def ndax borom bi tabaraka wa lu mu la wax lu ne mu bëri ci teg tudd nit ñi di am yoo xam ne dañ koy gis ñenn ñi di ko sàggane borom bi tabaraka wa taala bi ne kullu nafsin zaa'iqatul mawt bakkan bu nekk bu mos dund da ngay mos dee nit ñi gëm nañ loolu ñoom yëpp jullit bi yeeg yëpp bi yëpp ko ànd lu tax parce que dañ ciy teg seen dund bu set xam nañ ne nga dund ku nekk da ngay dee moo tax nag ci wax loolu ci wax loolu nga di ci teg sa bët bis bu set kooku moo wax ni nit ñi buñ jubee yaa ci siraatul mustaqim ma sotti leen xéewal bu jóge kaw asmaan ak suuf lislaam ngir loolu it dafay yar nit ki gannaaw bu mu ko yaree ci ragal yàlla ni muy sabate nit ragal borom bi tabaraka wa taala moo ci jiitu ci wàllu pas-pas bi la ak looy def lu ne nga seet ci yàlla ñaareel bi mooy tabax ko ci itxaan mooy xereñe li muy def lu mu mënul da jàngi ko mu doon lu am njëriñ mu jàng ko ba mën ko ba xarañe ko mu di ko jëfee nag boole ko taqwa bi su ko su boobaa la kooka di dëppoog ndigalu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla dafa bëgg bëgg ni ci yéen aw nit am na ñoo xam yàlla bëgg na leen ci mooy ñan nee na mooy ñi nga xam ne suñuy jëf jëf jooja dañ koy xarañe dañ koy mën bu wér xarañe nag aajowal ay fu nit yi jaar ba liggéeyam mu xarañe te mbir la yoo xam ne yenn yi nit ki lay dellu yenn yi ci ab tam lay dellu ba ci jëkk moo di jàng li la bëgg a ba mën ko lu ko a doon muy wécc moo xam da ngaa bëgg a tabax moo xam da ngaa bëgg a doon lu mu a doon ci àdduna ab médecin ngir nga doon ko da nga koy jàng ba xaraña boo ko jàngee ba mën ko nag nga boole muñ ak jom ak ub dëgër pour lii nga jàng ba mën ko nag man mën def loo xam ne askan wi danañ ko jariñoo da nga ci jariñu d'abord waaye mooy tomb bu njëkk bi pour nga mën a nekk ku xarañee mooy faw ñu dundal ruuxu yëg-yëg li nit ñi dañuy liggéeyal seen bopp dañuy liggéeyal seen askan waaye dañuy liggéeyal seenum réew dañuy liggéeyal xeetu lislaam yëg boobu faaw mu nekk biir xolum nit ki ngir yittee mën a yaatu bu jàppee ne sama ñaari doom yi sama soxna si képp mooy sama yitte ci kaw suuf kooku itteem suufe na lool kon la nga man ba xarañe ko jamono yëlee liggéey yor soo gis ma taxaw ci taabal ji di ministre ne yaa ngi ci métier moo xam ne da nga cee war a def loo xam ne ko koy jëriñoo kooku mooy itte ju kawe bi moom la ñu tudde almuwaafana si gis ñi bi nga xam ne nit ñi dañ ko war a yëg sukkandiku nag ci sa xarañte ak sa man-man gannaaw boo sukkandikoo ci sa borom tabaraka wa taala loolu mooy ñaareel ñetteel bi mooy faw état nag sàmm sàmm yooyu yi nga xam ne askan wi dañ ko jàng ba xarañee ko ba di ci góorgóorlu ak man-man yooyu nga xam ne ñu ngi koy def ni ngi koy sàmmee bi ci jëkk mooy encouragé ñi nga xam ne ñooy ñi mën a liggéey ba xarañee ba àgg ci di fent ñi tudde ay innovateur nga xam ne dem nañ ba àgg ci mën a fent dara ci li ñuy xar li ñuy def ñu sàmm leen soññi leen ci loolu ñu góorgóorlu mën a yaatu xam ne leen yi taxaw ci àdduna leen soofee ak leen joxoñ ay lépp yu mel noonu tàmbalee ci lu tuuti dong ñoom lañ topp leen taxaw di leen jàppale ba ñu xëy di defar ak yooyu naaw ci kaw asamaan si wala lu ko gën a kéemaane beneen bi ci des moo di ci nga xam ne état war na ko jàppale askan bu jëm foofu mooy xam production yi nga xam ne ñi nekk ci béréb bi ñoo ko def ñu suñu production locale moo xam ci façon bu mën a doon la bu amal njariñ askan wi dañ koo war a sàmm bañ koo weccee loo xam ne ñeneen a ko moom dafa doon lu jafe liggéey bu bu méttee métti la bu jafe-jafe ci état jafe ci askan wi ndax boo xoolee réew yi nga xam ne ñoo doon réew yu ndaw yi réew yi amagul doole dafa bokk ci collectif bu réew yu mag yi moo di réew yi bu ñu avancé ndax ñun ñooy suñ marché te suñ demee ba mën a defal seen bopp liñ soxla du suñu fu ñu ko jaayee moo tax lépp xeetu bët bu ñu leen mën a bët ba yi ngeen di def du am solo ñu saboote ko suufeel ko leen yoo xam ne dañ leen di woon ne yi moo gën ndax ngeen bàyyi la ngeen doon def loola danañ ko def loolu doonu kon liggéey boo xam ne yomb la waaye nag bu mën a nekk la ndax ay réewam koy def di jàll mbokk jullit yi sun maam yi fi jaaroon buñ delloo ba ci ñaareelu xaaju dix-huitième siècle li tàmbale mille huit cent cinquante jëm kaw sun yi fi nekkoon demoon nañ ci ak defar ay mbir yoo xam ne nit ñi aajowoon nañ ko ba àggoon koo xam ne mooy aajowoo ñu lu keneen di def seen yëfi bopp doyoon na leen bu ñëwee ci wàllu mbay mboolem jumtuwaay yi doon jëfandikoo di ko bay ñoo yor seen loxo defar ko bu dee ab tëgg mooy tëgg ëlleer bu bu dee machine ñoom ñoo koy defar jumtuwaay lépp boo xam ne bu aju ci moyen de transport yi ñu doon transport yi ñu doon jëfandikoo muy fas yi ñuy war ak lu ko nuru lépp ñoo koy defar seen bopp seen loxol bopp lu ci aju ci laaf yaag collier gaag teg gaag ndëgal yaag lépp loo xam ne li ñuy jëfandikoo ci aw di ko war la ñoo ko doon defaral seen bopp demuñu woon di ko jëgaale kenn lépp lépp lu ñu aju ci weñ wala mu aju ci der amul fenn fu ñu wute ji sax matière première bi ñoo koy wutal seen bopp ñoo koy tëggal seen bopp defar ko ba seen yëf ne coow defaral seen bopp yéene yañ soxla ràbb ko seen loxo bu ñu ko si ko ñaw ko di ko sol bu dee ay dàll noonu ñoo koy defaral seen bopp bu dee ay mbaxane yi ñuy sol sax ñoo koy def jumtuwaayu taw lu aju ci cin yaag kudd yaag la ñuy jëfandikoo moo xam kudd yu ñu liggéey ci weñ la wala yu ñu liggéey te la ñuy lu mel ne koog yaag bàpp yaag andaar yaag yu nuroog yooyu yëpp jëggaaniñ ko fenn ñoo ko doon defaroon seen bopp nga wëlbati ko xool leen ci lépp lu aju ci liggéey yi jëm ci wàllu dénk wala li ñu def xasab muy ci doon defar yu yéene yoo xam ne am na ci yuñ garde ba tey boo ko gisee da ngay jàpp ne ci wàllu ministère yi gën a avancé te gën a am matériel ñoo ko liggéeyoon ñoom ñu liggéeyoon ko ci jamono yooyu mu nekk ci suñ jonni tey ji yàqu weesu nañ foofu ndax dem nañ ba àgg ci ngànnaay yi ñuy jëfandikoo ci xeex ñu di ko liggéeyal seen bopp tàmbalee ko ci paaka jaasi xeej fet si boo xam doomu aadama da koy yor àgg nañ ci dem ba liggéeyal fetal dem ba liggéeyal ñu tudde maq dóom wax ne mooy baaroot fetal yoo xam ne day faagaagal lu bari ci mbooloo ñoo ko doon defaral seen bopp puutar bi ngay dem muy balaa yooyu ñoo ko doon defaral seen bopp foofu lañ toll woon colonial bi ñëw na ak seen colonial bi dañ ak seen xool ñii gis ne ñii ku leen bàyyi dañuy dem dañu nar a bokk ci réew yi keneen ëllëg dañ ne boobu mouvement moom nañ ko jéem a nañ ko taxawal nañ ko taxawalee moo di indi seen i idin monté ko yoo xam ne dañuy defar lu gën a rafet la kenn di defar lu gën a rafet doo laa wax rek waaye boo delloo ci dëgg ba la muy defar moo gën a dëgër moo gën a garanté ministre la

bàyyi liggéeyam ñëw topp kooka mu di ko fay weeram ab liggéeyam daal di tuuru xarañe kam xarañe woon mu daal di koy daal di koy fàtte loolu benn moo di xarañe googee ak dox boobee nga xam ne ñu ngi ko doon dox jëmoon kanam loola moom daal lay taxaw ñaareel ba dem ba wóorootoo sa bopp ndax dem na ba gëñ bañ gëm loola ne li ngay liggéey baaxut waaye li ngay jële dëkk bi rek loolu moo baax gëm-gëm boobu maal asaf malheureusement ba léegi moom mi ngi ci boppi liggéeykat yu bari da ngay gis ku defar xàllu ngaayam bu baax boo xam ne li daal ren gënu dem jël benn cachet boo xam ne leen di leen Italie wala France moom lañ koy def pour wane ni Italie lañ ko liggéey wala France lu tax parce que mbedd mi ngi fi nekk dañoo gëm ne liñ liggéeyee fii moom day war a suufe li jóge Italie wala mu jóge France ko war a baax nga dem wuti carte bu mel noonu fekk ko ci sa dàll woo xam ne wóor na la ne moo gën dàll way jóge Italie wala muy jóge France kooku ñàkk a wóolu su bopp moom lay jub beneen la moo di man-man yooyu nga xam ne nit ñi mënoon nañ ko ci wàllu xarañe ak dellu gannaaw wala dox bu yeex boo xam ne moom lay dox loolu xeex boobu moo ko waral ànd ak ne départ na départ boo xam ne suñ ko bàyyi woon boppam kon ko tey fu ñu tudd yenn réew yi Sénégal dinañ ko tudd yii ma tudd ci ay jumtuwaay doomu aadama di jëfandikoo kon des na wute si fii waaye ñoom ñoo jóg di ko wuti ci feneen ba ca teguwaat ci lim jur mooy ñeenteel ba mooy bi ci gën a metti moo di toog rek ferenklaa yu jàpp ne lépp loo soxla occident ñoo la ko war a defal yow daal yaay marché bi ñoom ñooy produire di la jaay ngay ñàkk guddi ak bëccëg ngir am njëgu yéen ñi liggéey ñoom nga di ko ci ñoom ñu jot seen bénéfice def yëg-yëg boobu dañ ñu ko dund wax dëgg yàlla gàcce la ci aw askan woo xam ne ba amee indépendance yàgg ba tax ba tey mënul ko demal boppam kon gàcce la ñu dem am juróom fukki at ñu tegal ci sunu réewi Afrique yi sa sécurité nationale képp ngir nga mën koo doxal faaw nga dellu ci hôpital yi taxaw loo mu door a taxaw kooku gàcce la ci yenn doomi réew mi di nekk war naa rus ci loolu te yëg ne jaadu na ci askan wépp ñu àndandoo yëngu ngir génn ci loolu su ma ne yëngu mooy dem jàngi métier dem liggéey faxaat jom jàpp ne dañoo war a nekk réew mu bokk ci réew yi gën a kawe di dimbali ñeneen waaye ñu toog di xaar ku leen xet li sécurité nationale bokk na ci li nga xam ne réew mu nekk yaa ko war a yoroon sa bopp yëg leen fan yi képp dem nañ ba mu yàgg am ndox mi fekk kenn amatul ndox mi ci capital bi ci Dakar ñu toog ay semaine di xaar benn pièce bu war a jóge France ñëw Sénégal pour nit ñi mën a naan foofu su doon suñu maam yooyu doon liggéey seen liggéey boobu bàyyi woon leen yéen ñuy dem kon lu mel noonu du leen laal tey kon pièce boobu ñoo koy defaral seen bopp dégg ngeen lakk gi am bëgg leen rek dañoo mujj ñu ne chauffeur France yi ñoo mujj ñëw fay lakk ay nappkat yi ñàkk fële ci Ndar dégg nga ne avion France bu moo ñëw di leen wër yooyu ay mbir la yoo xam ne yées la yu metti la yoo xam ne aw askan dafa war a weesu foofu mbokk jullit l'islam dafa bëgg nit ñi am jom dafa bëgg ñu liggéey dafa bëgg ñu am métier dafa bëgg ñu am jubluwaay objectif parce que liggéey suñu réew tabax ko loolu ci biir diine ji ci la bokk mbokk jullit yi ku déglu euh, depuis ay waxtu wala ay ay ay weer sax ak seetlu yor sam xel di seetlu da nga gis ne sunuy njiit tey li nga xam ne ñoom yàlla teg léewul ci am na benn jubluwaay bu bees boo xam ne moo di jéem a jëm kuy xool di seetlu ku nekk da nga gis ne loolu mi ngi fi te jéem a indi ak maandute muy li ñu tudde justice borom doole cëpp cëpp ci kaw ku am cëpp-cëpp ci kaw ku ñàkk jàll yooyu kuy feetlu te ànd ak sam xel te xam la doon daw bëgg démb ak démb ak li daw tey da nga gis ne am na lu ñuy jéem loo xam ne bokkul ak dañ ñuy noonu démb am na lu ñuy jéem loo xam ne boo xoolee da nga gis ne jéem a soññ nit ki mu am jom jéem a liggéey loolu ñu ngi ci jéem daal waaye nag ñu yëg ne li jëm ci loolu lu liggéey bi seetaa képp du liggéey ak kilifa liggéey buñ jiite waaye liggéeyu askan wi yépp la faw askan wi ñooy ànd loolu mu doon a jëm faw bépp énergie boo xam ne am nañ ko rawatina ci ndaw ñi ci wàllu jàng ak wàllu xam ak wàllu sàkku ay métier yu xarañe loolu war waru ñëpp ñëpp ci war a jëm lu tax pour ñu mën a tabaxaat nit wëlbati bu tabaxaat am réew moo xam ne bokk réew mi nga xam ne moom lañ miinoon ci seen wàllu sax ci seen wàllu diine waaye ci seen wàllu jom ak seen wàllu liggéeyal seenum réew kon tabax doomu aadama ci pas-pasam ak jikkoom ak bëgg réewam ba diin wa nga xam ne moom la lislaam jàngale woon lu ëpp fukki seekal ak ñeent loolu faw ñu delloo si waat ko tey dund kenn ku ne xam na ne nag ñi ci gën a ñi ci war a gën a diis ab yan ci loolu moo di jàngalekat yarkat imaam ñii ay yenn yu réeréer lañu war a yem ci doxin bi nga moom la nit war a dox tabaxaat gi war tabaxaat sax sénégalais jubbantiwaat gi ko war jubbanti foofu yàlla yu diis mosu war am yoo xam ne ku ne def sa responsabilité askan bi def seen responsabilité insha allahu am yeneeni xutba ci kanam yoo xam ne dana gën a détaillé ci bunt bii bii dafay doon loo xam ne rek dafa généralisé waaye dinañ jël mbir yi détail lan moo tax lan moo tax nu tardé dëgg dëgg dëgg diine ji ban taxawaay la waroon a am suñ réew mi taxawaay bi mu am ak ni ko nit ñi jéggee liñ koy dundal lan la yàq suñ développement réew yooyu yëpp faw ñu jàngat ko benn par allah